Les 72 heures d'animation et d'action économique pour des territoires résilients euh, xalaat bu ñu génne la liggéey ci ci biir ADEL agent de développement local bi ñu président de la République dénk pour dem ci territoire yi fekki population yi waxtaan ak ñoom xool seen jafe-jafe lan la ñu mën ko saafara parce que gox-goxaat yi kenn mënu ko développer bu fekkente ne ña fa dëkk ñoom seen bopp xamuñu lan la ñuy soxla malaat bu ñëwee ci hôpital pour nga faj ko danga koy laaj li lan la balaa ngay def diagnostic alors il faut gox goxaat yi ña fa dëkk ñu mën a mobiliser population yi mën a mobiliser acteurs territoriaux yi mën a mobiliser privé ba fa nekk ne leen yéen fi ngeen dëkk lii moo fi am loo xamante nii mooy seen doole dëkk bi ñu dëkk nii ñun suñu force amuñu géej amuñu ay usine mais am neen àll am neen forêt buy def cent deux mille hectares ñu ne waaw forêt bi nañ ci dugg xool nan lañ ko mën a valoriser lan la ñuy valoriser mooy espèce ya fa nekk mooy filière ya fa nekk garab yoo xamante nii tey nekkatu fi boo xoolan tey même pas deux cent mètres trois cent garabu démb da ngay gis mbéb da ngay gis guy mais léegi amatu fi tey ñu ngi yéen a ngi dégg ñu wax réchauffement climatique forêt yi yàqu neen loolu moo tax ñun ñu jàpp ne filière bu mel nii buy filière bu mel nii mango ak ak euh, ak ak mbépp ñu def ay pépinière pépinière yi bu ñu fi jógee léegi di leen fa dem jëmbat ko jigéen ñi di ko roose bés bu demee ba màgg parce que bu ñu defee pépinière dimb mille junne def mbépp junne def guy loo la même chose di ko roose bés bu màggee ñu mën ko jël ne dañ koy jëmbat def ko ay ay bois de village def ko des forêts villageois à travers des unités yoo xam ne dañu leen mettre en place ñoom seen rôle mooy arroser toppatoo bu garab bi saxee ba jeeb bi ñu jël ko yóbbu ko dem def ko ci benn dëkk di ko topp nag ba mu ba mu màgg bu ñu jógee ci loolu ñu ne waaw am na yeneen activités yu ñuy def yeneen activités ñu ne dëkkuwaay bi ñu yor nii comme sax tey ci tey gis nga ne dañu ubbi formation bi formation bi kat fore bi ñu am nii moom la ñu aménagé commandant jàppale ñu ba tey ñu ngi koy aménagé en mettant en place benn comité intervillageois ñi nga xamante ni ñoo wër forêt bi dëkk fa boo tëjee forêt bi tere leen faa dugg lu mat ñetti at ñeenti at mais lañ doon wuti ci biir forêt bi il faut nga jox leen leneen yu mën ci jàpp ñu ne waaw bu ñu aménagé forêt bi parce que aménagement ngay tëj dara da nga koy tëj ab dara ab diir boo ko tëjee ab diir ka nga teree dugg ci foore bi da doon ñëw taxan pour jaay da doon ñëw wut dara pour jaay mais il faut nga former ko utal ko beneen xeetu liggéey bu muy am pour daan boppam bu ñu terminé 72 heures yi den xool beneen commune ci beneen localité bu ñu maire bi woowee ñu waxtaan ak moom xool lan nekk ci moom priorité ñu dem seeti ko parce que on des projets yu mel ni i territoire i boo ko déggee mooy ci gox goxaat yi nga dem yóbbu fa informatique informatique mën nga ci faju mën nga ci jàng mën nga ci def lépp donc activité yi bëri na am na ay machine yoo xamante ni c'est des machines à moulin à mille suba deen ko jël dem yóbbu ko ci gox-goxaat yi nga xamante ni foofu amul courant donc ci liggéey boobu la ñu nekk 112 heures d'action d'animation et d'action économique dañ koy lawal ci wàllu njàng mi ci wàllu santé ci wàllu assainissement lundi matin bu ñu xëyee man en tant que maire damay sol sama tenue d'assainissement dem ci luuma ba